ak set.
wal yaqin.
ak wóol.
yal nañ ko lan yàlla defal.
lañ ko yàlla defal.
maa ngi leen di dénk sama bopp.
nee na mu ngi leen di dénk boppam nag bu leen ko fàtte ci ñaan.
duñ leen fàtte.
nee na incha allah duñ leen fàtte.
ñu ngi ziyaaru ñu ñëpp.
ngi ziare ñëpp.
képp ku ci demle ka nga demle yal na ko yàlla gërëm.
képp ku ci dem le ka nga dem le sëriñ bi ne mi ngi la koy jaale te di ñaanal di ko ñaanal yàlla yërmandi.
ku feebar le yal na wér.
ku feebar la it mi ngi koy ñaanal ka nga feebar la yàlla yal wér.
na yàlla musal ci gàtt fan.
yàlla na yàlla musal ci gàttu fan.
ak deewu mbetteel.
réewu mbetteel.
ak taxawu xol.
taxawu xol.
feebare àll.
feebare àll.
dee àll.
dee àll.
li sëriñ bi santaane.
di sëriñ bi santaane.
liggéey. jaamu yàlla.
jaamu yàlla.
liggéey.
liggéey.
fonk sunna.
fonk sunna.
fonk sharia.
fonk sharia.
koo tani dimbale ko.
koo tamit dimbale ko.
bul tooñ kenn.
bul tooñ kenn.
ku la tooñ nga ku la jégal.
tooñ nga jéggal.
loolu la sëriñ bi loolu la santaane.
sëriñ Abdou Xaadir di santaane.
moom la yàlla bëgg.
moom la yàlla bëgg.
moom la rasulullah moom la bëgg.
Rasulullah bëgg.
moom la bàyyam bëgg.
moom la bàyyam bëgg.
moom la ku baax bëgg.
moom la ku baax bëgg.
ñun ñëpp nañu moy ci loolu.
kon nag ñun ñëpp nañu mooy ci yooyu ndigal ak yooyu santaane.
bay bàyyi ngaayoo bi.
bàyyi ngaayoo bi.
ak xëccoo bi.
ak xëccoo bi.
na ñëpp booloo fa buum def ci seen baat teg ci loxo.
na ñëpp booloo fa bu buum def ci seen baat teg ci loxoom.
mu fab lolam mu fab lolam.
ak seen lol ak seen lol.
teg ci loxol teg ci bàyyi.
loxol baayam.
mu fab mu fab.
teg ci loxo rasulullah.
teg ci loxol rasulullah.
mu fab.
mu fab.
mu dugg teg ci loxol yàlla.
teg ci loxol yàlla.
mu def lan.
mu def la.
ak jaanaa ngi.
ajjanaa ngi.
dugg leen.
dugg leen.
ñaar jërëjëf ñëpp nga tax.
na ñëpp tàllal seen loxo dina amin.
na neel sëriñ bi itam.
sëriñ bi.
baal ma jotaay bi yàgg na.
na nee na sëriñ baal ma bi jotaay bi yàgg na gis lool.
ne na nga ko baal. jotaay bi nga xam ne ni yàgg na.
na nga ma jégal de.
nee na nga ko jéggal.
waaye jaam sañ na def la sangam lu ko neex.
sëñ Abdou Khadir nee na. lépp ak cant la.
te man place bi.
te sëñ Abdou Aziz ne place bi.
man doomu bàyyi laa fi waaye jaam laa fi.
nee na doomu bàyyi la waaye ab jaam la fi.
jaam juddu.
nee na jaam tudd la fi.
su ko defee nag.
su ko defee nag.
fa tabarakallahu fa tabaarakallaahu.
ñu ngi sant may sa fekk bu mu baax.
ngi sant alxaaji may sa sekk bu baax.
ndax mbokkam ma suñu bay Cheikh Maru Bëgg.
ndax mbokkam ma bàyyi Cheikh Maru bëggee woon ca Tiwaawan.
mbokkam ma Seydil Hadji Malick daf ko daan wax Cheikh.
di maam Alaaji Maalik daf ko daan wax Cheikh Maru ba.
man day war naa la sant.
man de war naa laa sant.
maag sama mbokk mi.
maa sama mbokk mi ndax sëñ Tuubaa.
yow yaay puso bi nga xam ne lu ñu bëgg a xotti ndax la yaay daal.
puso bi ne sama digganteeg moom ba lu ñu bëgg a xotti nga gaar.
waay waay gaañu.
waaw waay gaañi kon.
yal nañu yàlla may ñu jikkoo jikkoy yal puso.
nañu yàlla may ñu jikko woo jikkoy puso.
te bañ a jikkoo jikkoy te paaka.
bañ a jikko woo jikkoy paaka.
kenn ku nekk la kenn jàng Faatiha.
ku nekk na jàng faatiha.
salaatu ala nabi.
teg ci salaatu ala nabi.
ñaari musluwaay.
teg ci ñaari musulaay yi.
Serigne Abdou Khadir tëj ñaan gi.
sëñ Abdul Qadir tëjal nu ñaan gi.
ne ko nag su ma fi jógee nag.
sëñ bi sëñ Abdul Qadir sëñ bi ne ku fi jógee nag.
sañ naa def yëf yi jaam.
sañ naa def yi fi jaam de.
daan naa ko wax Cerno.
daana ko wax saa yi nooru taal.
su ma téyee ba mu yàgg.
su ko téye ba mu yàgg.
ma ne ko jéggal ma.
mu ne ko jéggal may taal ma del.
man amaguma dépense.
ndax amaguma dépense.
mu ne ma toogal rek.
mu ne ma toogal rek.
ma ne Moustapha ne ko damay def yëfi mu jaam.
ne Moustapha Diop jarbaatam bi neel Thierno maa ngi def yëfi jaam.
mu ne ko luy defi jaam.
mu ne ko yëfi jaam lan la.
ma ma ne ko mu laajte ma fekk mu demaa ne ba laajte mu ne fekk rocce fara ba daw.
dem. bisimilah.
ñu jàng ñu ñaan bi. Fatiha salaatu ala nabi fàll xeet naa bi. Sëriñ Abdou Qadir tëjal nu ñaan bi. amiin.
na sëriñ bi tëj. sëñ bi. macha allah sëñ bi tafee sëñ bi mu tafee. ah sëñ bi ne ko. sëñ bi mu tafee ñu ngi tàllal la ñaan. waaw tafee sax boo tafee rek naa ñu ngi la mën ñu ngi ànd ci yow. ah mu ngoog. waaw. leen di laajte si ñu ko waxee rek.
أيدكم الله ونصركم وأخذ بأيديكم وأيدينا والمسلمين أجمعين أحسن العبد والحنان بإذن الله أن يوصلكم وإيانا إلى ما فيه رضاه وسعادتنا الأبدية بإذن الله
lu mu def dëgg la lu mu def dëgg la tey bu def yooyu yëpp wax na koo ngi dara jam ji waxul ala may di ko rek xam ne yàlla moom nee na ku gën ci ko yàgg ci nit ñi lu mu def lu nekk yàlla mu def dama wax moom mu ne su fekkoon ci dama damay raam si bu sàkkul ngërëmee dinaa ko def ni waaw fekk bi yàlla bi ñu tagguuma bii mu lay wërsëgal tagguuma fu ma ne nga fekk ma fu ma ëpp la an dina ngor waaw moo yaa ko waaye ngi nii ñii fi ne nii waat naa ci yi muy rasul li tax ma ñëw dugg sa diggante li tax ma ñëw dugg sa diggante wóor na ma mooy ak yàgg nii teewlu ci loolu wax ñu def lañ sañ may ko te xam nga seytaan rek mooy def ñu sànni waaye fii daal di fexe moo di diine ak ngor ak islam boo dee wax ñu def ba ci ñu bay loolu loolu itam yàlla ko def man daal sëñ si bi sëñ bi dikk na mooy ñaari ci sa baay li mu ci def doyoon na sax ndax moom teewoon ndax tawam teewoon na teewoon na taxaa taal teewoon na dafa na ko marché yu gudd woo xam ne ñun ñi nga xam ne ñun la marché yi gën a war sax amaguñu xalam dafa defagun ko moom ci njëlbéen rek ci tooy tooy ba tàng tàng ba cere ko dal def sa saasu ci lépp kon jëmmam teew na kàddoom teew na ak njabootam teew na waaye lépp doyu ko woon ñëw na doon ci jaraam itam naa dikk ba tiim sëriñ bi foo mu ne def na ko fi mu dikkee mu ngi jëkk jaare ci Cheikh Abdou Khadir jaar na ko ko waxtaan naa moom waxtaan gudd boo xam ne la nga xam ne moom la fa wax lépp waxaale na leen yéen yëpp dama fa jógee dem na ba ci sëriñ bi Cheikh Abdou Lahad toog na fa jàngal ko sorti Yaasin ànd ko njaboot gépp ñu jàng ko ba mat ak yeneen i saar yi nga xam moom la ñu war a seere ku demee ne moom di ataay ba mu fa toog ban fee yegg si booba une heure mooy sow jëpp te toog nañ fi bañ nodd dafa mel ne ku mu doon a jóg waaw def na fa la nga xam daal mooy la war di gëm a moom mottali wala rek gannaawam moom fa jógee ñu noddu mu ne xaw mu dem barkeelu ci julli gi bañ demee it mu ne Cheikh Abdou Khadir tey bu nga jiitee te bu ko noon ma jiitee mu mooy jiite ndax mooy mag te moo jàkk ji jàkk ji Serigne Touba la Serigne Touba mbokkam la jaayam la xaw ma bàyyam la bisimilah kon ba mu yegsee daf ko ne kon may ma rek ma li xaamal la loolu la ko wax moo li xaam julli gi moo ko def ba mu noppee it waxtaan dafa waxtaan yu baax yoo xam ne yi moom amu morom dénk na taalib yi ci ñu war a mel wax na itam li nga xam ne ñoo ci jiite woon ni ñu nekkee woon ak kii fi nekk li mu nar a nekk insha allah ak li nga xam ne moom la fi borom bàyyi ak li mu ci doon def ak li mu doon wax ak li mu bind bàyyi fi lépp waxaat na ko wax na it yu tànk yu baax yi muy def di ko caa dikkal ca cosaan ba léegi te yoon mu ci jëkkoon dik ci fekkoon ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké la ca xew archives yi nettali nañ ko ñu teewuñ ko waaye archives yi nettali nañ ko mu nekk am na ca ba gouverneur woo na ko ci te ndar mu di ko ci coow yu jeex waaye fit ba mu amoon boobee ci def lu baax ak bëgg lu baax ak jokk bokk tey la ko gën a am kon ndem booba nga xam ne colonialiste yi ñoo fi ne nga xam ne bu defee loolu mu indi histoire kon léegi bi nga xam ne colonial nekkatu fi ay bokk bokk bokk ci fere ñoo fi ne te président bi ab jullit la ab jullit bi ñun di jullit nekk fii kon léegi réew mi amatul lu ñuy daw ci def lu baax fu mu fekkoon nga baaxoon ko nag waxi na ko kon loolu moo day tànkam waaye loolu dañ ko def lépp yërmande rek la si tudd ak bëgg nit ñi jëriñ ak bëgg nit ñi daal dimbal leen yërëm leen waaye bi mu koy waxee itam fekk na kon loolu sëñ Abdou Lahad daa wax ne ci ñaan gu nangu la ñu taxaw loolu mu wax dafa doon loo xam ne ñaan la koo xam ne sang bii mu fi fekk suñu xaadimu rasul fekk na mu ñaanoon ko baregal ndax waxoon na ci jamono yooyu naa di sore jamono yooyu neew na yaa malikal mulki yaa man jalla an xawadin irham jamii alwara yaa haadiyan radaa xut ummatal mustafa an kulli mafsadatin wal tarxamil xalq yaa man jaddahum badaa loolu moo ko waxoon bi yàgg kon nag koo xam ne ki da ngay yéene yërmande même toog yooyu doon def ñaaw yooyu ba nekk am fay am na ak bokk fay da nga xam ne ñëpp ànd nañu yow te li nga doon dégg bi nga génne ci jàkka ji kenn waxulu ko te nit mbooloo mi kenn sawuleen ko gone yeeg jigéen ñi ñëpp maasina Cheikh Abdou Aziz yàlla nga fi yàgg Cheikh Abdou Aziz yàlla nga fi yàgg loolu yaa ko diggal sa bopp président yeeg yëpp bu ñu def ci mbedd yi yooyu la ñuy déglu kon nag nga xam ne ndeem gone yeeg jigéen ñooy wax loolu kan ñoom mag ñi nga xam ne ñoo fi nekk si bopp yi isakallah xew jëfe waaw nee na mi ngi lay siyaare bu baax ñu ngi lay ñu ngi koy ñaanal nee na mi ngi lay ñaanal itam lépp loo xam ne ku baax ku fi bàyyi ko ba ca maamam nee na lépp loo xam ne ku baax kii si bàyyi ko bu Cheikh Abdou Lahad ba ci maamam ak lu bokk ci mba mba askanu Mbakke ak Mbusoobe ak lu bokk ci askanu Mbakke ak Mbusoobe ak Afe ak Afe ak fu mu mën a doon ak fu mu mën a doon ci ñu baax ñi te foofee doon taalub yàlla te doon foofa doon foo xam ne taalub yàlla la la fa doon yéene ji jëm ci yàlla ak jaam yi ak diine ji la fa doon yéene joo xam ne ngi jëm ci ci ci yàlla ak jaam yi ak ci diine ji yàlla la yàlla boole ca ña koy taxawu na ko yàlla bëgg yàlla la yàlla boole yow seen Sidi Mbacke nii ci ña koy taxawal ak ña koy dooleel ak ña koy dimbale te sa jébbale ko ak seenu jébbale ko ca kanamu yàlla yàlla na rafet lool te boobaa bu ngeen ci àndee jógee ba taxaw ci kanam yàlla yëpp bu ngeen di jébbal seen jëf yooyu bu ko yàlla seere yàlla na lu rafet yal na lu yàlla yàggal lool lool lool ci pala yal na yàlla yàggal fii ci gannaaw sëriñ bu baax bii te toog jotaayam fi mu toog wala ku wér ak gudd fan bu baax te yàlla defal la ci fan bu gudd bu ànd ak wér gu yaram yàlla def la ngay jëriñal mbindeef yi yàlla def la ngay njëriñal mbindeef yi waxuma ñi yaakaar sa baay ak sa maam rek waxut képp si ñu yaakaar sëriñ Tuubaa ak Cheikh Abdou Lahad adduaa ida amma nafa wa ida xasar tafa nee na ñaan su fekkee ne dafa matale day jëriñ waaye bu fekkee borom da caa gàttañ lu day dem day yëkkatiku du du dal kon nag ñaan gi yàlla lamb tey ak ëllëg kon nag nee na ñaan lii muy ñaan dafa ñaan yàlla mu lamboo adduna ak alaxira place bi te xam naa ne li fi li fi yàlla dafa du ko fi jële nee na xam naa ne li fi yàlla def du ko du ko fi jële ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ne allahu yastahi an yansia barakatan min mawdiin xad jaalaha fii nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne yàlla am na kerse ci dërëb boo xam ne dafa wàcce woon barke ba noppi mu di ko fa jëleyaat
nii nga xam ne moom la ko sa seen maam doon doxale ni nga xam ne ni la ko xaadimu rasul doon doxale di suñu wajur comme yéen waaw di waajuram comme nun te mu bittee ba ñëpp gis ko te mu fës ba ñëpp gis ko ndax nit daal mënul jëf ñu gis nit mënut a weesu jëf ñu gis bi wax ñu dégg wax ñu dégg te la mu doon la mu doon wax moom lay jëfe ba jëf fi te la mu doon wax moom lay jëfe ba bàyyi ko fi bind it bàyyi fi ba tey ñu di ci teg seen i bët bind bàyyi fi doomu aadama yëpp di ci teg seen bët ko kenn amatul lu dee fi laaj ci moom kon nee na laajte amatul ci Seexul Xadim lu dul xàll na waaw nee na xàll na na ñëpp sóobu rek ñëpp sóobu ñuy jot yal nañ ci yàlla boole ñee ñuy jot yal nañ ci yàlla boole jërëjëf jazakallahu xeer yal na yàlla musal ci ndog amiin yal na yàlla musal ci ndog non nit du mën a ñàkk noonu waaw nit du mën a ñàkk noonu ne nit mënut a ñàkk noonu bu dee ko baax waaye nag sa maam Seydou Hadj Malick waxoon na ne ay doomam maam Alioune Fall ne ko lii mànd ak yéen di ko di ci guddeeg di ci bëccëg su ngeen ko bàyyiwul du ma ne kenn du socc waaye kenn du gis loo ree ey tabarkalla kon dégg nga ko boobu wax jànga ko waaw nee na Alaaji Malick dénkoon na ko ay njabootam yi waaw waaw ne leen daal li nga xam ne moom laa leen xalal bàyyi leen fii ngeen ne ci su ngeen ko bàyyiwul du mën a kenn du socc ngir bëgg a ree waaye ree moom du ngeen kenn gis lu ko waral waaw kon nag alhamdulilah la ma waxoon ba sa bay fàllu debe te sa papa toog keroog ñëpp a nga fa dama leen leen moom daal lu def sos amatul dañ futti ku jëf rek la jërëjëf jërëjëf yal na yàlla dimbali amiin ñu fokk nag dana diis waaw waaye da ngay muñ rek tabarkalla da ngay muñ rek man sabara wata an naa naa la mata mën naa tabarkalla ku muñ te def ndànk rek da nga am li nga bëgg incha allah incha allah ndax tabarakallah moom ñun kenn dootu son ñun liggéeyal nañu lépp nag alhamdulilah ku yaafus nag moo dul am dara
tabarkalla yal nañ ci yàlla mos amiin amiin tabarkalla njaboot gi yal na leen yàlla déggal ak yow amiin tabarkalla ñu mu la dégg woon ak aji dem bi amiin amiin yal nañ toppe noonu sa gannaaw te yàlla jox la yal na yàlla nekk sa mbootu daal yow amiin amiin
ñu pare dem nag waaw baax na waaw kon bokk ma ñaanal ko bopp mu waaw.
dem bokk di ko dégg
waaw bokk. ñu jàkka ja. waaw kay Mbacke. Mbacke.
mu ne nee na bu fekkoon ne di ko woon itam kon moom dana la fekk fee ci kër ga nga ne ci kër Sëñ Abdou Khadir wala ci kër Sëñ Touba waaye moom toog moom kon dana la gis fii waaye nag ndax da laa yërëm ci coono bi moo tax waaye nag ñoom kenn ku nekk dafa am àqam waaw ci kuréel bi xattan xattan waaye bi ngeen ci baax waaye ne bëgg na lool ci jéego yi lool fakalla kontaan nañ lool banaaw yéen di kii dañ ci ñaari benn bi xam nañ ne yaa ngi mustique yàlla may la ak mën a ñëw ba nga dikk loolu noonu ko daan ñaan boobu ba nga xam ne koy doog a dégg ñu si gis si gis ñaan la yàlla kon nag dama mosoon dégg ci sëriñ Hadi Touré dafa ñëw jox saw fekk ma fa maag Alaaji Simi ak mu sëriñ Moustapha ak sëriñ Tijaan Si radiyallahu taala anhum ñu ngi ànd ak Maodo Touré mu fekk ma ca jox saw muy tàngu bayaat ma ñu waxtaan ak man ba muy jóg di ñibbi ma di ko gunge ma ne ah man ko dama bëggoon barkeelu ci tool ma ne ko barkeelu la ma ne dama bëgg ñu wutal ma gopp bu baax ma dem ma ne ko tee nga bàyyi man ma dem ma ne ko ku ma ko tudd ma ne déedéet ba mu yàgg ma ne wax na da nga mësuloo dégg la rëbb boo waxoon ma ne ko déedéet lu ma waxoon ma ne dafa toog doom yi ba mu yàgg xelam dem ciw yàpp fekk ma sax na feetal soxna feetal ko ba wékk ko mu wékki ko gàddoo ñu ne ko bàyyi foo jëm mu ne damay wuti rënd kenn ku ne ne ko bàyyi ñu demoon mu ne déedéet am na loo xam ne borom rek ko mënal bopp ne ab daan mu sox feetalam génn ci àll boo xam ne kenn du ko ko tere mu jiir ba jekku ci rab bu mu gën a bëgg teq mu dal ci padd fërëñ fërëñ moom mi def ak ñukk ko muy def pour jàkkali ko ba def
bandax daal mënu ko bàyyi kenn mënu ko bàyyi kenn mooy li xew yëpp xew na Cheikh de Mountaga àndoon ak seen doom Maodo ak ñeneen waaye nii daal defe naa ne innamal a'maalu bi xawaatimiha léegi ko mën a ñëw léegi ñaan la kenn ñu ngi leen di nuyu bu baax di ziyaara ne ko ñu ngi koy nuyu di ziyaara di yeesal bokk bi waaw nee na daal ba nga xamee dégg na it ne foofu nga di ñëw itam mosti dañ di ñaan rek yàlla indil ak jàmm ba ngeen gisee ndax daal bëgg nañ ci lool bi nga moo xam ne mi ngi ñaan yàlla yàggal la fi te may la ak wér ba li nga yéene ci lislaam bi ak jokk bokk yi nga ma ne ko ni ni nga ko bëgg
yal nañ ko yàlla sàmm amiin amiin ne ko fàttaliku naa ñaari yëf ba ci ñett loo xam ne lu ci nekk ci Seydi Xaj Maalik la jóge jëm ci ñoom benn bi dafa woo ay bokkam néegum ndeyam ak néegu ak néegu bàyyam Jolof ak Waalo tëj bunt ba man ñi ca doon ña doon woote ji ca laa bokk maa wooy woon doom bàyyam bi ñu wax Mamour Buri jotaay booba de sëñ Maodo Mamoun. sama mburu ñaar rek a ci nekk. moo cay jigéen. góor gi waxtaan ñëw ci wàllu diine yi ba noppi wàllu tarixa bi. wax leen nag ci wax wàllu bopp bi. lu dikk ci diggante ma bay Serigne Touba radiyallahu anhu. ne sama ne sama mbokk moom yi. lépp ku ci wax dara lu ko lu ko lu ko dul rafetal. yaa boole Malick ci sa bopp waaye Malick boole wala ci bopp gis naa itam Serigne Cheikh Asta. ñëw Tiwaawan dal ci kër njob yónnee ko ne ñëw na fi ba mu ñëwee di ko ziyaara góor gi ne ko fan nga dal mu wax ko ko mu ne ko nag yéen fii mooy seen dalwaay dal di ko téye mu ne ko day defoon na mu ne ko nañ ko jox na fa nekk waaye fii nga war a dal yeneen ak yeneen jur moom nag yal nañ ko yàlla sàmm ci dara jël moom mi ko def te ñooñu kenn def ko ci yàlla ko def yàlla ñu ko sàmmal baax a baax ñun ñi fi desandi yàlla des yu yàgg te yàlla téyel méngoon ñu suñu lépp yàlla buñ yàlla bàyyi suñu dara te boole ci way yaakaar yi suñu bëggoon nag dem ca kii noppalu tuut ndax dina teel a dem dama bëgg su ma dee dem dama war a jaar Fass Touré seet bi ma fi jaar sànq ne leen daal mënuma wàcc damay dem ba def si bi may ma tuuti jët ci jaaxalu ko mbooloo mu am xaalis jaaxalu ko mbooloo mu yor ak ceeb jaaxalu ko mbooloo mu yor suukar jaaxalu ko wóor na ma bis mu nekk dana jox yàlla yi moom ci moom bëkk dégg bi ñuy waxtaane moom maag moom ci yow duñu toog mukk tudd la duñu toog mukk mukk mukk ci waxtaan wax na ma nee na ma sa télé gu ne dëgg la ci yow waaw moo wax ni sa télé yow wax cofeel gu ma am ci yow ci bokk am bëggeel gu ma am ci bokk xamit lu baax li ngay def ci bokk gi di ko wax kon sa mbokk mii su dee wan dee xëj ma ni yàlla mi yàlla nag moo am lu baax yàlla ne boole dimbali as borom ñu jullit ñi
Cerno Muntaga mi ngi leen di nuyu wax Cerno Muntaga déedéet dara jotu alhamdulilah
mu ne ah fanam moo di bari ñu bari amu amu amu ko woon tey itam dëkk boo doon fa tabarakallah am dëgg yàlla dimbale woon na ko ba amoon fitna daana def buñ di mu ñu mag mag mag suñu naan day jëm ci la moo ñu ci ëpp itte ak taxawaay yàlla dimbale woon na suñ ball bu ko bi ñëpp dégg ca gannaaw demoon naa ko demoon naa ko seeti ko ma ngay bëgg xam-xam rek ma bëgg xam-xam rek bind na ma sax keroog lekk sax tontu naa ko ndeysaan tabarakallah waaye sax tabarakallahu lettre ba tër ba dama koy jàng di ko jàngulaat rek tabarakallah ah waaw tabarakallah dama ko wax keroon ne ko yow ñu mbett yëfi salatu waaw mu ne ko tudakiruni هذا الحديث الشريف لولا أشياخ ذو الكعب وأطفال ذو الضعف وبهائم ذو التعب لصب الله عليكم البلاء صبا mu ne ko ñooñu ci la bokk yàgg fi baax na lool yal nañ ko yàlla defal yal nañ ko yàlla yal nañ ko yàlla defal defal ñu
gërëm bu baax nga jéego yi ndax xam ne jéego yi jéego yi cofeel ak dëkk ci sa waa kër sa dëkk fa moo nekk tax nga def ko waaye du man xamal boobu itam ñëw lañ la ko bu baax ndax ko waxee na moo gàll mayu ko ak njiit dañ laa war a fekk ki nga xam ne moo dem ba nga di ko jaar ci tey mën na la ko jaar ci moom dëgg la te war ko ne sax bu fekkoon ak peex yegg si na dana mën a jóg jaar ci la ko ndax yéen a ko bokk dëgg la dikk yi dangay def lu rafet rek ak lu baax ak mottali ko waaye defoon nga ko ba noppi dëgg la ku taawam teew yàlla mu taxaw daal ànd ak moom ñu def marché bu rafet ba ne fa nga dem yëpp dikk ca saaka loolu ñu ngi ko weer taxawaay mënu ko weer dëgg la sa jëmm teewoon na ko nag teewoon na te wax teewoon na ndax sa marché teewoon na sa njaboot teewoon na ndax teewoon na xanaa daal ñu màgg na teewoon na kon sa jëmm teewoon na li ci def mu ngi aju si jëmm ji ak man ji loolu xam nañ li ci yàlla dogal nangu nañ ko jéggal nañ la li nga def tey rafet na lool yëg seet na bu ñu tubaab nee na birab bi sa birab bu musile bi sa birab mag rek ñoom xam nañ ne mag moom mën naa bay ci dëkk lu baax rek moom ngay wax la ca biir moom ngay tere boo ko def foo diglee lu baax wala nga tere ko leneen lépp sol na ci noppam nga xam ne loo ci wax rek moom nga ko waxal ñoom ñi ci yëpp nga ko waxal kon nag loolu ci liggéey bi li ngay def dañu ñaan yàlla rek mu yàgg yàlla delloo la si sago donc gën ko fee man amiin ko mën a continuer ba yàgg ba li nga xam ne moom la sax yàlla gàll ñu yegg sa ànd ak jàmm ak salaam bañ a bañ a tële bañ a am benn ndox boo xam ne lii tax ba li ngay def mën a am jafe-jafe léegi nag yëpp ci nekk jàmm si jàmm ci ñu koy yéene woon yegg na waaw yàlla na mën a fay suñ gën a biddi dana fay suñ tuba xaadimu rasul bi nga رضي الله تعالى عنه xam ne lépp la ci yow ndax ñu nga demee ci maam ma maam maaram yëpp xam ne دبل دبل ci waa wet bu rek loolu nga bokk bu nit dana la fay ممكن islam bi tax nga di ko def ci دبل kon nag defar nañ kër sëñ tuba gee yëpp na mën faa noppalu واو بحنا bu rek bu la sa yaram sedd bii bu la neexee yàlla bu la neexee faral kër gi sa kër la nga xam ne mooy garabu sëñ bi boo jógee mën nañ ci jaar nga taxaw fa sànni fatiye buñ ko jógee nga jaar ci buntu kër ci lu lahat sànni fatiye doom jë jaar ko ñu daal di yóbbu nag ca dal ba واو yaa moom sa bopp waaw waxal li bëgg naa kii rek
جل جنيه ده mu nag جل وقال سلم لي نعم بالزيارة
Baye Cheikh Abdou Khadir yaa bokk ni yëpp sëñ bi ne mi ngi leen di nuyu te di leen ziar
bi may dugg ci dëkk bi léegi nee na léegi bi muy dugg ci dëkk bi daanaka matul woon wax daanaka sax motul woon a wax waaye wax loo xam ne lii dana dugal mbëg ci xolu ko ngay waxal waaye wax wax joo xam ne dana dugal mbir ca xolu ko ngay waxal mu xamit la doon sa yéene te mu xamit la doon sa yéene loolu day dolli rafetal rek loolu wax juy dollee rafetal la rek waaye ba tey mi ngi taxaw ci taxsilul xaasil li ñu bëggoon am na ba noppi waaye loolu lépp a ngi taxaw ci amal lu amoon ba noppi ndax li ñu bëgg ci yoon wi am na ba noppi wax naa sax ñaan naa sama borom léegi tabaraka wa taala mi nga xam ne laa yaasubu anhu misqalu darratin nee na ñaan na boroomam bi muy dugg ci dëkk bi boroom bi nga xam ne bii dara mënu koo rëcc ak ba may jóg ci suba ak ba mu jóg ci suba ci këram nee naa suñu borom tabaraka wa taala seytaane ku bari pexel nee na woon sunu borom tabaraka wa taala seytaane day ku bari pexel waaw gi la maa ngi lay ñaan waaye maa ngi lay ñaan yow borom bi nga aar ma mag ñi ma àndal nga aar ma maag ñii ma àndal ba yoon wi ma jóg ba yoon wii ma jóg mu nekk li wajhikal karim mu nekk ngir sa jëmm ji rek yow borom bi dara bañ ci rax dara dara dara bañ ci tabbi dara dara dara bañ cee tam su sottee itam ma bañ ci jokk dara bu sottee it nag ma bañ cee jokk dara doonte la loolu mënoon nañ ko ci jokkee doonte sax luñ ca mën a jokk na it ma bañ ko ci jokk ma bàyyi ko beneen ma jamono bàyyi ko ba beneen jamono
loolu mooy yoon wi nee na looloo yoon wi ak ziyaara si la ak ziyaara si la ziyaara si suñu wajur bi fi nekk ci biir ak bitti ziyaara si way jur wi fi nekk nag ci biir ak bit di ziyaara mboolem kilifa goo xam ne tey yow la yàlla fab nga nekk seen kanam yal na la bootal di ziyaara mbooleem kilifa goo xam ne yow la yàlla teg ci seen kanam tey nga boot leen yal na la yàlla boot leen di ziyaara it bokk yeeg xarit yëpp di ziyaara it bokk yeeg xarit yépp léegi azzairu fi qabdati lmasuri léegi dañu ne gan moom ma nga ca loxoy njaatigéem rek na nga ko tërale rek na nga ko tërale rek incha allah danaa ko doxee noonu bu neexee yàlla noonu rek la koy doxe su loolu sottee it nee na su loolu noppee it nag jaam su demee ci sangam jaam bu demee cib sangam warul wone dara waru la wone dara waaye mën na wax sang ba waaye mën naa wax sang ba nag lay bëgg-bëggam lay bëgg-bëggam moo di yéen dox moo di yii ñuy dox daal bu sottee yal na ko yàlla nangu yal na ko yàlla nangu te ba yal na bu mu ko yemale fii te yàlla bu ko yàlla yemale fii waxuma da sax man nee na waxul moom mii waaye mbooleem jaami yàlla yi nga xam ne seen bëgg-bëgg ngi aju fii waaye mbooleem jaami yàlla yi nga xam ne seen bëgg-bëgg ngi aju fii te bëgg-bëgg yi mooy yaakaar yi ak njort yi te bëgg-bëgg yi génnul yaakaar yeeg njort yi te yaa fi nekk yaa fi nekkal allahu subhanahu wa taala te yaa fi nekkal sunu borom fii nekkal fi xalifata rasul nekk fi xalifata rasulillah nekk fi di kuutaayu sallallahu alayhi wa sallam itam nekk fi xalifata cheikh alxadimi radiallahu taala anhu nekk fii it di kuutaayal jëwriñu sallallahu alayhi wa sallam joojule muy maam borom Touba Nekk.
radiallahu anhu nekkit di xalifata alislami walshariati walsunnati nekk fii it di kuutaay li nga xam ne yaa fi toogal lislaam ak sharia ak sunna wa xalifata almuslimina yaa fi nekkit nag di kuutaayal jullit ñépp toogee seen place nekkaat fi gannaaw baadama kunta xalifatan li li xadi li xadimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi lbatini gannaaw booy kuutaayu jëwriñu sallallahu alayhi wa sallam joojale ci kaw suuf fii noonu nga nekkee xalifatan lahu fi asratihi walil muridin noonu nga nekkee kuutaayal maam borom Touba itam ci mboole mi bokk mu giir gi mu bokk ak ñi ko yaakaar yàlla mi soob mu def loolu ci kattanam waaye amuloo njëgam yàlla mi nga xam ne moom la soob nag ci coobaree mu fab la teg fi tey te yow amuloo njëgam te ñun ñëpp suñu dajale woon bëggal la ko te yàlla àndu ci du sot te ñun ñëpp buñ dajaloo woon bëggal la toog ci place bii yow Seydi Abdul Qadir te yàlla na mu ko du sot waxoon naa sa mbokk ma Seydi Aboubacar ci kanam àdduna yëpp nee na mas nay wax ak sa mbokk ma Seydi Aboubacar si radiallahu anhu ci kanam àdduna yëpp ma ne ko siis bii nga toog nee na ko woon sëñ bi siis bii nga toog démb gunna moomu ko démb gunna sa maam moomu ko alxaaji malik moomu alxaaji malik sa baay moomu yàllaa ko moom yàllaa ko moom su neexoon yàlla mu teg fi portugais su neexoon yàlla mu foog portugais teg ci ci ne alxaaji malik yaag sa njabootu ku la yaakaar ne alxaaji malik yaag sa njabootu ku la yaakaar su ngeen su ngeen toppul ci su kii ngeen toppul ci portugais bii li ngeen bëgg ci man li ngeen bëgg ci man du ma leen ko jox yàlla mi def loolu yàlla mi def loolu nag kon te defu ko ci pexe te defu ko ci pexe kenn du ko jënd kenn du ko jënd moom mi la fi tegal boppam moom moomu buur boobu nga xam ne moo la fi tegal boppam na rocc ci loxol ñëpp na rocc ci loxol ñëpp te téel la bopp te téel la bopp
yal na ko yàlla def yal na ko yàlla def te lale ko wér ak fan wu gudd te lale ko wér ak fan wu gudd gudd sëriñ Yuusufa Jóob nee na ma woon nee na sëriñ Yuusufa Jóob ca Faas nee na ko woon